Euh, bu ko defee xam naa li may tënk sax ci ñaari nit yi xaw na ko mën a gën a néew tuuti ndax ay cant la rek jëmale ko ci sëñ Amidun mi nga xam ne euh, sàkkal nañu aw lay wu ama am solo rawatina jëmale ko ci ki nga xam ne bëgg naa xam dëgg-dëgg dundug maam Cheikh Anta woon ndax ñu bari ci ñun bu ñuy wax ci maam Cheikh Anta wala ñu di ko diglu dañuy jàpp ne ku fi nekkoon la rek am xaalis bu bari jekku jamonoom doon lekk lu ko neex di solu ba rafet ak yooyu au contraire nit la woon koo xam ni ku doon participer la ci développement wu réew mi waaye doon participer itam ci jamono bu ko laajee mu jàppal tànk ki nga xam ne dafay yëngu ci politique te taxawaayam gën a méngoo ak taxawaayu askan wi mu jàppal tànk kooku loolu yaakaar naa am na ci solo lool ñu fàttali ko ko waaye mbokk yi fi teew itam ñu xam ni sëriñ Amidoune dugal na boppam ci histoire ndax wax nañ ko léegi benn borom xam-xam wax na ko alxattu tabqa zamanan ba'da katibihi wa saaxibul xatti taxta al ardi madfun boo xasee ba bind la nga bind day des ci kaw suuf da ngay dem ba wàcc ab liggéey ay junniy junniy at ñu di la tudd ak di la fàttaliku ak di waxtaane say wax borom xam-xam bu ngeen fi mën a dégg ci àdduna kilifa bu ngeen fi mën a dégg muy kilifa diine wala muy kilifa ak aada wala muy kilifa ak cosaan bu fekkente ne bind na te nga bëgg a xam na mu meloon kan la doonoon lu doonoon ay principe dellul ci li mu bind nga xool mooy li gaaw ci dimbali nit mu xam kooku lan la doonoon loolu itam la Serigne Touba xam ba tax dundam gépp yemul ci la mu gàlloo woon muy liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci di ko tagg ak di ko jullu ci moom ak yooyu waaye fexe na itam ba ci xam-xam ci wàllu grammaire arabe yeneen wàll yépp ci wàllu soufisme mu fexe ba bind ci loo xam ne aw layu boppam la wu koy layal ba ginnaawam képp ku bëgg a ñëw tilimal ab deram ci dara la loo xam ne bokkut ak la mu nekkoon mbind mooma mooy taxaw ne la ay na yéwén jamono bi ngay wax la ma sëriñ la ki ngay wax bindoon lii te mu ngi nii loola bu boobaa day mën a weddi bi ngay wax loolu danañu danañ ko mën a jël ci message misaal yu baree bari ci li nga xam ne mi ngi xew ci yu yu bari yu ñuy wax ci mbiri sëriñ bi bu ñu delloo ca mbindam par exemple lettre boobu ñuy wax 1902 euh, bu ñu delloo ci mbindam rek yaa jumlatan xadd sallasu dafay weddi loola ndax la nekk yaa jumlatan ak la nekk ca lettre ba c'est diamétralement opposé kon di dellu ci mbindum Serigne Touba mooy li ñuy gën a mën a dimbali ci ñu gën a mën a xam fan la ñuy teg suñu tànk kon mbind mi loolu lay jëriñ boo ko defee Serigne Amidou bi nga xamee ne bind na ba pare ñi fi toog ñëpp nañu xam ne ku nekk ci ñun waroon ngaa bind mm-hmm. ku nekk ci ñun waroon ngaa jëf luy tax ñu bind ci yow borom xam-xam yi loolu rek lañu wax dañ ne ñaara fi am soit nga def loo xam ni dañ koy bind nit ñi di ko jàng soit yow sa bopp nga bind loo xam ne nit ñi dañ koy jàng léegi nag nañ fexe ba ñun ñu bañ a génn benn ci ñaar yi nañu jëf luñ ñuy bindal wa ilaa ñun ci suñu bopp ñu bind loo xam ne nit ñi dañu koy jàngal bu ko defee ñi nga xam ne mënuñoo bind itam nañu góorgóorlu ba ay layoon ci livre bi ñu dimbale lañu ba jënd ko ku ko mun munta jàng jëndal ko sa njaboot am ngay doom am ngay jarbaat am nga ay mbokki taalibe am nga ay mbokki dëkkandoo yoo xam ne mën nañoo jàng nga jëndal leen téere bi ñu xamaa xamaale ci maam Cheikh Anta nga dundalaale xam-xam jàppale waale Serigne Amidou itam ci liggéey bi nga xam ne tàmbali na ko dina ko gën a encouragé bu bu ëllëgee mu mën a góorgóorlu ba fexe ba euh, sawaraat yi indi beneen yeneen i édition yoo xam ne dañ koy gën a mën a jariñoo kon daal Serigne Omar Bamba euh, yi mën na ñu ngi sant ñëpp te di leen gërëm